di ñaanal suñu jàmbaar Cheikh Ahmadou Kara yàgg fi loolu te ànd ak wér ak kilifa diine yëpp di ko ñaanal mbokk taalibe yi ñu ngi ziar waa Dakar instant bu nuyoo yow soxna Aysatu ak noo rëy rek. Euh, jàll na ci équipe technique bi yëpp rek euh, macha allah. Mbacké nga doon koo xamante ne amaana euh, kenn du ne guleet waaye sa macha allah nga def liggéey bu am solo fi nga xamante ne moo di Sénégal à travers œuvre yi nga xamante ne saa su nekk yaa ngi koy le lu ci mel ni màggal Touba lu ci mel ni da màggal Daaru ay taalif yi nga xamante ni le général de Bamba di Cheikh Ahmadou Grand Mbacké Noreyni da koy daal di bind dangay def sa kéemtulaay kattan ba tout tànk yi mën ko tey jii mbébét boobu saa boo saa gisee gone yi di ko mën ban mbébét nga ci am. waaw macha Euh, mën nañ ne duñ ci dara ñun de ay ay ay lantinoor lañ rek ndax ki nga xamante ne bi nii mooy dara mbind mbindam te ba mu koy bind fekkewuñ ko muy jëm Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni xam lam ci jublu ndax euh, moom kat dafa jaayante nee na moom mooy le grand poète de Bamba ni ku tedd ki euh, sonne ci yàlla ak yonent bi ak alxuraan lépp loo xamante ne bi nii ku tedd ki bind ko ci xasaayati rek bu ngeen gisee Cheikh Ahmadou Kara moom dafa concentré wu fa ku tedd ki tegoon tànkam di bind eh, xasida yi ci diggante yàlla yonent bi ak alxuraan moom la Cheikh Ahmadou Kara fas yéene def ci taalifam yi di wax ci ku tedd ki di wax jaar-jaaram ak ñi mu àndal di ci xamle loo xamante ni bi nii taalif yi boo ko gëstoo sax di nga xam lu bari ci Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni loo xamante ni bi nii umpoon na la ci ku tedd ki di nga ko xam grâce a Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ci taalifam yi léegi nag ñu gis ne àdduna dafa am nu mu tëdde te xëy na tout tànk yi boo ko defee ay way ci lañ koy gën a gaaw a man te boo ci jëlee tuuti rek def ko ay way bañ mokkal ko dinañ bëgg a gëstu la ca des moo ñu yombalal leen ko way yi tamit air yeeg yépp ci ahmadou kara la la jugee moo tax sànq ci njëlbeen wax ji man la ñun ay lañ rek mm-hmm. ay la ay wayam la dañ koy moderniser nag ndax on est dans un monde moderne xam nga dugal ko ci musique waaye mu nekk loo xamante ne bi ni xëy na kenn du ko seetaan ne accam waaw jàllale ci taalif yi ci Ahmadou Kara Mbacké Noreyni may ko mag ñi may ko soxna yi may ko tuutànk yi waaye boo xoolee tànk yi comme ni nga ko waxee ñoo koy gën a wayantoo waaw loolu daal di mission bu rëy boo xamante ne bi sëriñ bi tamit dañ ci am ndigalam ndax xëy na buñ ci amuloon ndigalam du duñ ko defee niñ koy defee ah façon biñ koy defee dañ ci am ndigalu sëriñ bi te bu demoon ba ba wax ñu ne soppi leen defee leen ko nangam ñu soppi ko defee ko nam ko bëggee waaw ah. am na am na un jour ba dégg la nga naan bu sëñ bi digle woon sax ma way benn artiste ak musique amaana ak ni ko bëggee dañ koy defee noonu waaw xam nga mas naa tax ne ne bu ñu tëggloo woon sabar te xam nga loolu waxin la ku xam Cheikh Ahmadou Kara xam ne du ñu sabar waaye dañoo bëgg a wax nit ñi ne maanaam ñun ndigal kep képp képp képp képp la déglu ci moom mhm. bu nee droit droite bu ne gauche gauche duñu lijjanti ndax foofa sedd na mbaa tàng na ndax xam nañ ndigal lim ñu jox wax dëgg yàlla xam nañ moom tawféex gim nu yéene te xam nañ ni tamit ni Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul doone la sauveur de l'humanité Cheikh Ahmadou Kara loolu noonu la bëggee propager loolu ci àdduna bi yëpp ñu jot ci yërmande Serigne Touba moo tax mu xam ne musique dafa ndar képp jamono mu cay jaar jaar ay jaarale ay message am nag di ci jaarale taalif yi ngir nit ñi gën a xam kan mooy Serigne ndax ku tedd ki moo ne laanat leel xulub wal abdaanu lin qaadatil bidaan wa soodaanu nee na ñu weex ñi dinañ ko wuy si ñu ñuul ñi dinañ ko wuy si Cheikh Ahmadou toog def analyse daal ne ñu weex ñi nan la ñuy wuy see ku tedd ki waruñoo toog rek di ngàmmaaral ndax ku tedd ki lu mu wax rek baatin bi day sotti waaye saayir si ñun buñ ci ci ci xel mu sell li borom daaru moxti waxoon ne góor day yàppe ngi yaa pexe buñ ko deful rek du sotti moo tax nag façon bu ko Cheikh Ahmadou Kara bëggee rek dañ koy defee noonu saa bu ñu soppiloo ñu soppi bu ñu nee ne leen tekk même bu sénégalais yi soxlaa dañ naan tekk moo tax jamono ji ñu ni tekk bu fekkee soo ñu jógaat. waaw waaw mais damay gis ñenn ñu naan man eh, est-ce que doo wax sëñ bi ñu dem Esplanade Grand Théâtre wala musée des civilisations parce que des fois dañuy namm eh, déglu sa ñax ma. dëgg la ndax eh, boo xoolee am na benn Sorano bu ñu fi ñëwoon sax ba ba may tooñ mbokk taalibe bi naan ndax pare ngeen pour Grand Théâtre fi ñu toll nii projet beeg lépp pare na waaye xam nga sànq maa ngi yaa ngi dégg ma naan la ndigal. Mhm. projet bi pare na bañ présenté ko ku baax ki ba wax ko ñu ko bëgg a déroulé ci taalif yi wax ko niñ ko bëggee defee ci mélodie ak façon bi nga xam ne bëgg nañ ko moderniser defee ko noonu te lépp lu ñu ci am ak nu mën a toll dañ koy jëlaat joxaat ko addee Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ndax xam nañu moom ku tedd ki rek loo moo ko ñor loo ko jox mu delloo ko ci ku tedd ki bañ ko ko présenté mu ni waa baax na déglu ma ci léegi dañ ko ciy déglu bu àpp ba jotee moom moo ñu koy gën a xam bu ma fettasoo ne ma loolu nga doon sumbukat mën nga cee jóg mbaa mën nga koo topp mbaa mën nga cee dox ñu nekk ci liggéey bi waaw Baye Baye nga defoon fi caravane de la paix hmm. mu doon loo xamante ne jusqu'à présent àdduna dañ koy waxtaanee à quand waaw gëm nañ nag incha allah bu ñu yàlla mayee tawféex euh, fii ak koor gi am na ay mbir yu ñu nas ak Abdoulaat yoo xam ne bëgg nañ koo gën a fësal te macha allah dinañ ci àndaat ak yéen comme ni ngeen ñu couvrir woon waaw ndax am na ay action solidarité yoo xamante ne bëgg nañ ko def ci ci ñi nga xam tout temps ki nga xam ne dañoo ah, caabi da leen a féete ginnaaw ak tout temps ki nga xam ne dañoo nekk ci lalu hôpitaux yi ak ah, ñi nga xamante ne bi ni dañoo ne ci mbedd bi xëy na amuñu fu ñu dallu wala sedd bi di dugg bëgg leen a sonal waaw dinañ am luñ ci taxawee daal liggéeyal ci ko tedd gi œuvrer pour Dieu à travers les hommes daal ci lañ fas yéenee teg suñu tànk ñu fekk la fi nga xam ne mooy Sorano Khalil Kara defoon ko mu doonoon euh, événement boo xamante ne ñëpp euh, dañ ko saluer à travers Serigne Ahmed ko wax mu ne la loxo Serigne Ahmed mi ngi si ndaxte daf ko taxaw cette fois ci aussi nga ñëw dooleel ko sa relation ak Khalil. waaw macha allah sama relation Khalil mooy gis na léegi li ma defal ma Ndiaye Fall. mooy sama relation ak Kader mooy sama relation ak képp koo xamante ni bi nii cofoo mbiri Cheikh Ahmadou Kara pour mu leer nag. ak koo mën a doon boo coful mbir Cheikh Ahmadou Kara du ma cof say mbir ñoom nag cofuñuy daray sëriñ bi ñu ngi jëfee ndigal di moytandiku tere ñu ngi jéem a doon nabil doonte nabil yombul waaye li sëriñ Tuubaa ne uri li wajhi maliki sabila la muridin sadixin nabila Cheikh Ahmadou Kara di ñu ko fàttali saa su nekk ñun ñii di wax ak yéen bëgg a doon loolu un aspirant véridique et intelligent ñoom nag ñu gis ni foofu lañ teg seen tànk ñuy naf nafi ci taalifi te fu ñu dégg ndigalu sëriñ bi ñoom kenn du leen ci jiitu moo tax ñoom lu ñu mën a xewle lii bu ko defoon Tamba sax buñ ci amee ndigalu sëriñ bi dinañ ko fa fekk dooleel ko ndax kat moom mënu ko ji ci ci ngor ji ñu ko ci taalibe ak ma ni ko Mandiaye faal di defee ni ko Kader di defee ni ko beneen ak beneen beneen mbokk taalibe di defee kon ñoom ñëpp dañ leen ciy ñaanal ñu gën a góorgóorlu rek ndax taalif yi bari na bari goo xamante ne bi ni macha allah buñ ci góorgóorloo rek répertoire la boo xam ne mënuñu ko jeexal ci benn guddi waaw mënuñu koo jeexal ci benn guddi moo tax looloo waral nag suñu teewaay ñu jàppale ko ci liñ naan avant pendant et après moo fi am ci fa ci noonu lañ fas yéenee teg suñu tànk jàppale ko mbokk bu buñ jugee ci moom songaat beneen mbokk taalibe buy waajal leneen ba ci Mandiaye Fall miy waajal la 5 incha allah waaw le 9 décembre kay Grand Médine waa xaraaru ah nyong mom moom kay nyep ngi ci woo ñëpp mbokk taalibe yëpp waaw ku bëgg gis leneen lu bes dal, ak talif yu bees hmm. ndax démb rek sëñ Mame Balla mi ngi may tooñ ci taalif yi may rënk <laughs> ma dama cee fiir am na taalif yoo par période la koy génne le 9 mom dinañ génne dina incha allah le 9 le 9 mom bu ñu ko talee te fekke ko hmm. bëgg naa jàng talif bo xam nit mosu koo dégg incha allah waaw surprise lay doon waaw taalif boo xam ne moom Cheikh Modou Kara ko bind te nit mosu koo dégg ah, <laughs> waaw waaw incha allah ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax jërëjëfati